mais ci liste yi da nga xam ne nit ñi moom ñu ngi bindu moom lu féete ci parti politique bu mu mën di doon ñu ngi dem di bindu ji même ñi nga xamante ni bokkuñu ci benn parti politique man gis naa ay pères de famille yoo xam ne dañu obligé seeni ay doom primo votant ñu dem bindu ji ci list électorale yi ndax xëy na daañu am 18 ans balaa ñu egg ci élection yi te ñooñu duñu féetewuñu fenn ci wàllu politique nga xam ne si kon sénégalais yi am nañu beneen vision dañ doon wax naan sénégalais mooy fal di folli temps wu alternance wu Ablaye Wade Macky Sall mais détermination bi di parce que Sénégalais yi caaxaanatuñu mais euh, lu jëm ci wàllu Ousmane Sonko coowal Mame Mbaye Niang li damul woon laafu opposition bi de nii coowal Adji Sarr problème bii li président Macky Sall ni Sénégal amul détenu politique wala détenu wax sax xalaat Nemekou tuur dafa am ku ko doon coordonné ku tudd Fadilou kayta avant loolu sax Fadilou Keita dañu dem Malicounda gars yi màgget seeni i attaqué leen gis nga waa APR il faut ñu bàyyi li ñuy def réew mi kenn moomu ko foog ñu bàyyi mi ñi exprimer seen xalaat dem fu leen neex dañu dem Malicounda booy màgge seen i leen ñu jógee fa ñëw cikki booy cikki yi attaqué leen ñu xeexoo fa am ñu fa ami gaañu gaañu ñu dem tribunal ñu arrêté ñenn ci ñoom ñu def seen prison génnaat Fadilou kayta ci la amee problème mu euh, purement euh, secret muy affaire état ak affaire disparition gendarme yooyu mm. euh, mu joxe ci xalaatam ci post Facebook am ñu arrêté ko. donc ñett yooyu yëpp dajaloo foo aw ñu yuuxu la euh, foo aw ñu tàppaas la nga xeex ñu jàpp say garde corps arrêté euh, ñu jël ki doon coordonné nemmeeku tour Fadilou Keita après arrêté ko mënatul continuer donc mais est-ce que est-ce que loolu wax na mën a tax bu fekkee moom projet bi wax ne moom lay moom lay moom lay wan sénégalais est-ce que gëm na ko est-ce que loolu wax na mën a tax mu taxaw wala déet entre-temps ay projet ay procès yu bari ubbiwaat fii ñu yëngalaat fii dossier Adji Sarr face to face Ousmane Sonko Adji Sarr amaat fii tëbaat fi génne fi affaire diffamation loolu gis nga justice bu Sénégal dañu ko respecté dañu respecté suñu ay magistrat mais foog ñu fàttali leen ni justice yoonu réew la boo xam ne peuple moo tax existence su loi yooyu am donc nañu bàyyi xel peuple boobu benn magistrat bi na xam ni il fait partie du peuple ci peuple bi la bokk dossier bu amee takkatal ndomba tànk nit tax mu mbubb ci dossier loo xam ni bu fekkoon amul takkatal ndomba tànk boobu du ko def justice dafa am nu mu ci war a taxawee bu ñu demee Sénégal nag ba saa boo tuddee justice doonte woon ni benn baat nga ko tudd ñu ni offense boo tuddee police doonte woon benn baat nga ko tudd ñu ni offense boo tuddee gendarmerie doonte woon benn baat wala njiitu réew mi ñu ni offense. outrage wala outrage. loolu mënut a nekk ci réew bu am démocratie parce que loi bi la def yow magistrat loi bi la def policier loi bi la def journaliste loi bi la def président mhm. loi boobu moo may sénégale mu am liberté d'exprimer son opinion léegi nag yow sa toogaay tax nga bëgg koo xañ xam nga lan la mus moo sës ci miir lay doon dalay wokk mhm. gis na situation réew mi duñ ko laaj ku dul responsable yi mhm. léegi nag Ousmane Sonko moom wax na ni du nangu ñu tëj ko effectivement kon gis na ni gars yi ñu ngi bëgg accaparer waa Sénégal ci saalu wàcce kenn heureusement bi mu ko comprendre li jaadu nag mooy ñu génn opposition bi foog ñu génn opposé wu parce que ñi féete ak nguur gi dañoo fàtt ni ñoom 2009 2010 2011 dañu doon opposé wu ñu leen di tàccu dañu doon taxaw ni Abdoulaye Wade lii dox na lii doxul mais jamono jii bu ñuy wax ni réew mi doxul kan la ñuy laaj ay compte ku dul Macky Sall moom dong la ñu am sañ-sañ ni ko réew mi doxul ba fii ak ki koy remplacé bu ñëwaatee kooku ñu ni ko tam réew mi doxul parce que Macky Sall da doon wax jamonoy Abdoulaye Wade nii réew mi doxul donte wane comptable la ci gestion Abdoulaye Wade mais bu ñu xañ Sénégalais yi liberté boobu am réew mënta am ay alternance te musta am fitna nga bëgg kenn du fa wax xalaatam ba ci presse bi saa boo waxee dañ naan kii Pastef la. kii gëm sa bopp la kii nangam la gis nga nit ñi ragaluñu leen parce que ñoom moomuñu Sénégal bu ñu bëggoon a militer dañuy dem politique yi ba sàmba da cee dem ba ñun ñoo opté ba ñu politique féete population presse bu nangu nag journaliste bu nangu nag ñu lay linger tax nga ngay xof sa nangage que toi yow da nga am benn sas ak peuple bi di ko dénoncer ay jafe-jafeem di ko waxal liy metti te bañ a bokk ci benn obédience libre pour wax sa xalaat mais tey ñi féete ak nguur ñu ne li ay devoir opposition bi nañu génn opposé wu ci tey joytu laale sénégalais seen i jafe-jafe sénégalais sonn nañu ah càlla gis nga ci korite gii nii dañoo xëy kenn amul ganaar et bi korite gi passé ginaar dafa lamb quel paradoxal <laughs> dañu xëy amuñu ganaar mhm. le lendemain korite ginaar lamb parce que ñi am ginaar amuñu sax accès ci marché bi pour mën koo jaay parce que ñi am ginaar dañ leen sax auto limite parce que li ñu doon nga doon sànq ci wàllu économie importance digitale. car ñi am ginnaaw sax jàppandaluñu leen ci wàllu avancement ñu mën a digitaliser seen ay marchandises pour nit ñi am ci accès wala sax bu ñu ko defee ñenn ñi itam amuñu accès ci internet pour mën a am accès ci jënd ginaar yooyu donte woon ne Sénégal def na ay jéego ci wàllu vente en ligne malheureusement et pourtant état dafa am veille ci yooyu mais état boo xam ne politique saalu lu cekkee rek toujours ak jàpp nañu di leen dugal kaso ak jàpp ni te kenn du ko wax cest à Sénégal am na détenu politique. war nañu bàyyi xel askan bi di joxe seen ay xalaat comme ni ko démocratie maye Sénégalais yi. d'accord euh, Birahim euh, Ousmane Sonko bi nga xam ni euh, démb annoncé na ay activités dina ko fa yéenee dox